إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi seede na yàlla rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di seede na yonent yàlla muhammad moom la yónni woon ca ñun ngir mu jàngal ñu naka la ñuy jaamoo suñu boroom yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit sunu xutba tey bii mi ngi jëm ci benn ndénkaani boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon na ko kenn ci ndawi xeet bi te yonent bi ay dénkaaneem bam dénk kenn walla mbooloo moog lam dénk xeet bi yépp a yem lam tere kenn walla mbooloo moog lam tere xeet bi yépp a yem mbokk jullit dund gi ñuy dund daa bari lool ay coono suñu borom yàlla mu ni laqad xalaqna al insaana fi kabad doomu aadama yàlla dañoo bindee bés bu nekk yaa ngi yóotu loo jotagul bés bu nekk yaa ngi ragal loo xam ne lu lay dal la bés bu nekk li nga jot a am yaa ngi fexe noo koy sàmmi loolu nag mbokk julit fokk doomu aadama bi am lu ko ciy dimbali su dee ña gëmul yàlla ña nga riir jëm ca njabar ya ña nga riir jëm ca ña nga xam ne jàpp nañu ne ñoom ñoo yor a lor ak njëriñ waaye mbokk jullit kaa ñu déglu suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ak kii di abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma bokk na lu mu ko wax fekk ndaw la mi ngi noonu fekk ndaw la ibnu abbas bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di faatu amul sax ñaar fukki at mu ne ko ay kaay ma jàngal la ay kàddu kaddu yooyu nga xam ne moo gën oor ak jama ca mooy ay yow ngóor si fexeel ba wattu yàlla kon de yàlla dana la wattu fexeel wattu yàlla amul luy dugg lu dul yàlla ñoo jàppale la ca mbokk julit wattu yàlla jalla wa ala moom mooy nga xool ay ndigalam jéem koo jàng taxaw ca sa kémtaleel kattan xool lam la tere nga góorgóorlu jàng ko moytu ko sa kemtalal kattan wattu ya ngay wattu ndigali yàlla wattu ya ngay tere tere yàlla loolu may wattu ga ngay wattu sa boroom mu ne boo ko defee day yàlla subhanahu wa taala dana la wattu ay sama ngóor si déglul ma jàngal la booy ñaan bul ñaan ku dul yàlla ay mbokk jurit xamal ne mboolem li nekk ci kaw asamaan yeeg suuf kenn donga ko moom muy suñu borom jalla wa ala te mi ngi lay dégg loolee moo tax ba xel mënul nangu jaam bi xam ngay jàkkaarloog sa moromu jaam mi amul sañul di ko ñaan bàyyi fa borom bi jalla wa ala bi nga xam ne moom moom lépp ci sañ lépp mu ne ko ay ngóor si booy dimbini ko dimbinikul ci yàlla kese mi ngi noonu ndax yàlla rek moom mooy yor ndimbal wa man nasru illa min indillah yàlla rek mooy dimbilaate xamal ne mboole mi jaamu yàlla yi bu doon dañoo dëppoo ci ne kat nañ la indil njëriñ duñ la mën a jëriñ ci lu dul loo xam ne yàlla da koo bindoon ci yow waaye mboole mi jaamu yàlla yi bu doon dañoo dëppoo ne dañ laa bëgg a lor duñ la mën a lor lu dul yàlla bind ci yow yàlla lam doon bind bind na ko ca it kayit yi yëkkati nañ ko looloo tax ba yow jullit bokk na ci musiba bu rëy buy dal doomu aadama xolam bii muy dem ba keneen ku dul yàlla mu ko cay ragal jàpp ne kooku mën na koo lor wala fii sunu maam yi dañoo fekk ñu naan ragal de yàpp yàlla la ragal yàpp yàlla la loolu tax suñu borom yàlla bëggul jaam buy dëkku moroomu jaamam waaye bokk na lu mu gën a bañ jaam buy ragal moroomi ay jaamam waaye yaakaar it mbokk ab jullit du yaakaar ku dul yàlla jalla wa ala mi ngi noonu lu waral loolu mooy yàlla subhanahu wa taala dong mooy dogal ca lam doon dogal dogal na ko ba pare gannaaw loolu mbokk jullit bokk na lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ngóor soosee da ko xamal ni anna nasra maa sabr wal farj maa karb léeg-léeg yàlla teg la ay natt waaye natt yooyee bokk na la la cay musal mooy muñal muñ go rafet amul koy muñ muñ go rafet lu dul yàlla dimbali ko tiis yi la dal ngal la waaye muñ ko muñ ko rafet amul ku koy def lu dul yàlla subhanahu wa taala dimbali la ci ca loolu mbokk lan mooy muñ go rafet mooy nga xool xam ne lii ma dal day ci yàlla dong la jóge lii ma dal day yàlla dong ko mën a teggi jeex na li ma dal yàlla dong ca la jóge yàlla dong ko mën a teggi nga xool lan mooy sa warugar nga def ko lii mbokk moom mooy muñ gu rafet mbokk xoolal kàddu yi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon saxal ca ndawi jullit ña ndaw ñooñu nga xam ne bu ñu fi jógee ñoom ñooy nara jël relève bi mooy jël diine ji war koo tasaaroo la jiitu lam doon jëkk a saxal ci ñoom moom mooy saxal leen seen ngëm yàlla doon lu dëgër anu lu tee woon mu ne ko ibnu abbas man maay ki gën ci jaami yàlla yi nekk ci kaw suuf heure boo jàqee woon sawtu heure booy sukkandiku neel yaa muhammad heure booy nangam neel yaa muhammad mbokk julit lu tey woon yonent bi wax ko loolu waaye déedéet mbokk muhammad dañuy gëm ne ab jaam la loolu moo tax ba moom ci boppam lam woote woon ci yonent yi jiitu woon woote ko mooy dañ doon woote ilallah yadu dañuy doon woote jëme ci yàlla mi ngi noonu jalla wa ala su ko defee mbokk yow mi nga xamee ni nii yow yaay bëgg a yar sa njaboot ngal la waay xamal ne lay essentiel ci yar boobee fexeel ba njaboot gi gëm yàlla ndax njaboot gi ay jaami yàlla lañu njaboot gi ci yàlla la ñuy dellu njaboot gi yàlla da leen di dajale àllaaxira la nga gën a màgg xamal ne diplôme bi gën a rëy wàccaay bi gën a rëy bi nga yóbbal sa njaboot fexeel ba ñu gëm yàlla bañ koo bokkaaleeg dara yaakaar yàlla bañ yaakaar keneen ku dul yàlla ragal yàlla bañ a ragal keneen ku dul yàlla lii bu amee mën nañoo dem fu ne ci àdduna kees gu ne mën nañ leen koo jox milieu bu ne mën nañ faa dugg amul lenn lu leen di déranger amul lenn lu leen di yëngal ndax dañuy xam ne du seen kattan moo leen di may keneen du leen may waaye dañuy xam ne it du seen keneen ku dul jaamu yàlla mënu leen a lor loolu moo tax ba mbokk jullit lii mooy yóbbal bi gën a rëy boo xamee ne nii jullit dana ko yóbbal la nga xamee ne nii mooy ak njabootam. su ko defee suñu borom boobu subhanahu wa taala gis nañu li nga xamee ni nii jàngal na ko jaar yonent bi alei salaam jàngal na ko kii di abdullah ibnu abbas bokk na ca mooy ibnu abbas xamal ne day li la dal mënuloon fexe ba du la ñàkk a dal loolu tax jullit du doon koy riccu doon koy désespéré naan wuy su ma yëgoon wuy nangam déedéet lu la dal rek jàppal ne ah lii de la yàlla dogal su ko defee nag nga daal di muñ muñ goo xam ne muñ go rafet la xaar borom bi subhanahu wa taala mu teggi la lor boobee mu bokk ci bakkaar yu grave mooy doomu aadama dem ba jàpp ne yàlla dootu ko xettali ci déedéet mbokk julit yonent yàlla yanquub yàlla teg na ci moom natt bu tar teqale koog doomam ji yuusuf alayhi salaam loo xam ne jege na fanweeri at ñu mu dem bis bu mu jàppee ne tey la mbir mi di xeccali ko yàlla xëy xëy dolli ca jël ca beneen doomam muy Binyamin ñetteel ba ñu ñëw dolli ca la nga xam ne nii moom mooy taawam ba ñuy Yahuza loolu lépp yàlla dox diggante ma ak moom waaye teewul lan la waxoon desitu doomam ya mooy ay yaa yaa baniya izhabu fa taxassasu min yusufa wa axiihi wala tayasu min rawxillah innahu laa yayasu min rawxillah illa alqawmu alkafirun e yéen sama doom dem leen sàkku leen gëstu ci yuusufa ak i mbiram ca bu leen dagg seen yaakaar ci yàlla ab yéefér dong may dagg yaakaaram ci yàlla e yow mi nga xamee ne nii yaa ngi nekk li nga xam ne moom mooy wërsëg tëna la mënoo am dara bul dem ba jàpp ne si fini yaakaaral sa boroom yow mi nga xam ne ab sëy jaaxal na la yaakaaral sa boroom yow mi nga xamee ne nii dangaa nekk ci feebar boo xam ne nii jàpp nga ne du wérati déedéet bul def loolu yaakaaral sa boroom bul dagg mukk sa yaakaar ci yàlla mi ngi noonu innahu la yayasu bi rawxillah illa alqawmul kafirun kenn du dagg la nga xam ne nii mooy yaakaaram ci yàlla lu dul koo xam ne nii dangaa bokk ca yéeféer ya mbokk julit suñu borom yàlla nettali nañu ci téeréem bi ay nettali yoo xamee ne nii daf ñuy gëmloo ci ne yow julit lu mu metti metti xamal ne sa borom mi ngi fi keroog ba muy yónni Muusa ak Haaruna di leen yónni ci Firawna buur bi gën a màgg ci kaw suuf boo leen mbëru bokk na lu leen seen borom waxoon gannaaw ba ñu ragalee ne yàlla de ñun buñ demee jàpp nañ ne danañu rey mu ne leen déedéet maa ngi ànd ak yéen asma wa ara loolu yàlla waxoon Muusa alayhi salaam te mu gëm ko loolu it keroog moo tax ba mu taxawee ci kanamu géej ga Firawna ngi ñee di ñëw ak i not ak i armeem nga xam ne waa bani Israël doyuñu leen ci dara ñoom ñépp ñu bokk tiit lan la Moussa waxoon kalla inna ma ya rabbi sa yahdin déedéet yàlla ngi ànd ak man yàlla dana ma jubal ca la ko yàlla joxe ordre mu daal di dóor géej ga géej ga xar yàlla musal ko naka noonu itamit yow julit léeg-léeg nga dem ba bunt yépp tëju yaakaaroo fenn foo xamee ne nii da nga fa mën a amee da nga fa mën a wéree da nga fa mën a xettali ko ila axiri waaye ngalawaay demal sa xel ca sa borom yàlla mi ngi ànd ak yow ca borom boobu moo ne sa yajalu llahu baada usrin yusra yàlla day borom kàttan gi gannaaw jafe-jafe bu nekk mën na koo wëlbati ko def ko ak yombal mu bokk ca saar ya gën a suufe yi ñuy jàng ci téréb yàlla bi li borom bi subhanahu wa taala di wax fa inna maa al usri yusra inna maa al usri yusra nekk na ànd ak jafe-jafe bu nekk la nga xam ne nii moom mooy ak yombal loolu moo tax ba mbokk julit bul dagg mukk say yaakaar ci yàlla jalla wa ala ak natt ya nga xam ne moo dal sa kaw ak natt ya lu mu tar-tar nga la way dellul ci sa borom jalla wa ala yonent yàlla yunus sama nga nele ca biiru jën ba ca biiru géej ga waaye gis nga daggul yaakaaram ci yàlla daf na yàlla laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin yàlla day amul kenn koo xam ne nii yeyoo nañu koy jaamu ku dul yow bokkoon naa ci ñi tooñ suñu borom yàlla daal di koy xettali ba pare daal di ne kazalika nun jil muminin nii ma xettalee yunus day laay xettalee bépp julit donte ne ne mbokk julit yàlla moomu it bul bàyyi ba problème yi ñëw sa xel doo ko dem ci moom jamono bi nga amul benn jafe-jafe del yaakaar yàlla di toroxlu ci yàlla moo tax borom bi jàll wa ala ne ah yunus kat ma nga ne xetti xettili naa ko waaye fa lawla annahu kaana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasuun xettili naa ko lan moo tax ma xettili ko mooy moom avant muy dugg ci jafe-jafe yi dafa bokkoon ñu doon sellal seen borom min almusabbihin sellal yàlla bokkaale wuñ ko ak dara yaakaar yàlla looloo tax ba mu nekkee ci jafe-jafe yi yàlla xettili ko waaye lu mel noonu la firawna waxoon keroog ba ko yàlla di labal ci géej ga amantu annahu laa ilaha illa allazi amana bihi banu israil gëm naa la nga xam ne moom la banu israil gëm ca mooy yàlla kenn waru kenn amul kenn ko yoo ñu koy jaamu ku dul moom loolu rek la yunus a waxoon waaye moom lan la ko yàlla tontu al ana wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin ndax léegi ngay doog a nangu loolu ca nga doonoon ku bew bokkoon ci yàqkat ya loolu tax ba mbokk julit góor-góorlul ba jamono yi nga nekk ci say xéewal nga jàpp ne xéewal yi ci yàlla dong la jóge yàlla dong ko mën a saxal moo ko mën a sàmm waaye it nga bañ a ragal benn tiis buy buy jóge fenn xanaa lu dul ci yàlla heure bu loolu amee day heure bu tiis ñëwee nga ñaan yàlla yàlla gën la xettali gannaaw loolu mbokk jullit jullit du ragal ko dul yàlla du sukkandiku ki kenn ko dul yàlla tey jii yaa ngi nekk ci liggéey ñu dàq la gàllawaay bul jàpp ne àdduna tukki na bul jàpp ne place boobu nga doon liggéey moo yor sa wërsëg bul jàpp ne patron bi la dàq moo yor sa wërsëg laa wallahi mbokk suñu borom mën na laa tëjal benn bunt ubbil la fukki bunt yow mi nekkoon cib sëy ñu fase la bul jàpp ne jëkkër ji moo yor sa àdduna laa wallahi yàlla subhanahu wa taala mu ne wa in yatafarraqa yuxni llahu kullan min saati bu ñu teqali ko yàlla ku nekk mën na koo jox ci ak yaatuwaayam kon ragalal yàlla yaakaaral yàlla yow mi nga xamee ne nii dangaa amoon jëkkër jëkkër ja dee yow mi sa baay yoroon baay ba dee bul jàpp ne jëkkër ji moo la yor baay bi moo la yor déedéet suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne daf dana wax wa tawakkal ala alxayi lazi la yamut heure booy wékku wékkul ci yàlla mi nga xam ne yàlla moom du dee kuy dee bul wékku ci moom wallahi bàyyi mi nga xam ne moo yor kër gi xalaat yépp mooy lu fi dee bàyyi ko rey ndax bu bàyyi deeyee kër gi day dee laa wallahi bàyyi mën na dee kër gi gën a neex mën ngaa jóge ci liggéey place dem feneen fu gën a baax ab jurit loolu lay gëm du wékku ci kuy dund du wékku ci ku nar a dee abadan day wékku ci yàlla mi nga xam ne tawakkal ala allahi ladi laa yamut loolu tax keroog ba sahabatul kiram ñàkkee suñu yonente alayhi salatu wasalaam jàpp ne adduna tukki na adduna lu ñu fiy defeeti abu bakarin saddiq dafa ñëw na leen man kaana yabudu muhammadan fa inna muhammad qad maat wa man kaana yabudullah fa inna allaha hayyun la yamut koo xam ne muhammad moo moo moom nga yaakaaroon ci na moo yor say mbir moo tax say dund di jëm lu baax loolu neex defal muhammad de xam leen dee na moom waaye képp ko yaakaaroon yàlla ne xam ne yàllaa ngi fi judee ba faw loolu mbokk dalalal sa xel ci loolu ngallaawaay yow borom kër dalalal sa xel ci njaboot wékkul ci yàlla njaboot gi bul toog mukk di xalaat moo bu ma dee sama njaboot gi fuñ jëm mbokk boo dee sa njaboot gi ñi ngi jëm ci borom njaboot yàlla moo la yoroon yor sa njaboot wékkul ci yàlla jàll wa ala kii nga xam ne mooy xadir ànd na ak Moussa alayhi salaam ba ci benn dëkk mu fekk benn miir bu daanu mu yëkkati ko. Moussa ne ko lii nag lu tax nga def ko mu ne ko kii de ay xale yi ko moom seen bay daa baaxoon yàlla yebal ma ngiree ma sàmmal leen seen alal bañ màgg mën koo jël amul kenn koo xam ne wékku na ci yàlla ci dundam ak ci deyam lu dul bu wanee gannaaw njaboot yàlla dana ko wuutu ci njaboot googee loolee tamit mbokk mooy la nga xamee ni ni moom la ñu war a yar suñu njaboot nañ moytu njabarkat yi nañ moytu di yaakaar ke ñen ko dul yàlla ab sëriñ ab yenent dañ koo war a ñaanal waaye wuroo yaakaar luy jóge ci moom ngal la waaye nañ bàyyi sukkandiku ci aboubacar wala omar wala muhammad muhammad alayhi salatu wasalaam suñu borom danee ñaanal leen ko yàlla yokk ngërëmam yàlla yokk yërmaandeem yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi amma ñi ñu jiitu woon aboubacar omar ousman ali walazina jaau min baadihim yaquluun rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaqu bil sabaquna bil iman suñu borom nee na ñi leen jiitu ci diine ji dee leen leen ñaanal ngiree ma jéggale ngiree ma yërëm leen waaye nga la waay sa xol bi bu ko wékk mukk ci keneen ku dul yàlla nga la waay sa ñaan gi bu ko jëmale mukk ci keneen ku dul yàlla sa yaakaar gi sa sukkandiku gi bu ko jëmale kenn ku dul yàlla mbokk mi ngi noonu bokk na lu jullit di gànnaayoo mooy xasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla day doy nañu ca moo gën a baax ci ku ñuy wakkirloo yàlla na yàlla dëgëral suñu wakkirlu ci moom yàlla yàlla wéral suñuy wakkirlu ci moom mboolem la nga xam ne mooy xëccilig adduna xëccilig àllaaxira yal na yàlla jagleel ñu ko mboolem xéewalu adduna xéewalu àllaaxira yal na yàlla jagleel ñu ko yal na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu njaboot bu ñuy dund ak bu ñu leen wanee gannaaw mbokk mi ngi noonu allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin